waaw ba tey ñu ngi ak euh, le grand champion Malick Gakou numéro 2 bu école de lutte Balla Gaye donc champion nga am euh, combat ak Bosse numéro 2 léegi ñu bàyyi la nga nuyoo daal di présenté wu Petit Niang ñu bàyyi la nga nuyoo daal di présenté wu. waaw ñoo ngi nuyu Sénégal di nuyu monde bi yëpp di nuyu waa Géejawaay di nuyu surtout sit bi site bi Géejawaay TV neex nañu trop ndax Géejawaay moom ñu seen dina am lépp waaw dañuy am suñu lépp waaw ñoo nuyu baax. waaw tay ji sa combat ak petit ñaaraari taxaw euh ba xam am ngeen date wala date bi ken japp gu ko. waaw essay e kay amaguñ date mais tamit yaakaar nañu ne fii ak deux semaines wala semaine bi mom dinañ am date ndax promoteur yi am dafa am lu ñu doon réglé ak CNG te instant commencé jënd licence ak yoy kon xamna lek ñom ñoom date mais amaguñ date dal wa ñi ngi tok di deglu di entraîner daas fanaan te bëgg nañ date bu jégué tamit ndax essay mom e moom ko paré nañ bu doon suba tay mën nañ ko bëré waaw ay kon entraînement yi nan lay démé ñaata séance ngay def ak ci lan nga ko nga ko accentuer waaw dañuy matinal dem day géej après ñëw e salle musculation ngon gi ñëw fi ci école bi kon dak non lay def adversaire bi sa xam nga ko bu baax wa adversaire xam na ko baax adversaire bokku nañ ay adversaire bokku nañ trois adversaire hein ah. trois adversaire moy mooy nongolo tonnerre 2 ak cieli man dama daan ñet ñoo ñëpp mom ñaar ñi dañ ko daan kenn ki la daan Thielly rek la daan mais Ndongo Lo ak Tonnerre ñoo ko daan man maa daan Ndongo Lo daan Tonnerre daan Thielly ñoom ñett ñëpp adversaire yow lañ bokk daal mais benn génération bi la te li ma jógee si defet moo tax ma jël ko mais bu ma bu ma bu ma bu ma daanul woon kon du ma ko jël waa moom tamit mais yàlla baax na daal li gën daal mooy ñu ngi jël nañ combat bi ñu ngi entraîné ñu ngi aussi ñu entraîné yàlla ñu yàlla may ndam si jour ba incha allah waaw ba tey ñu gis ne bu weesoo defet boobu yaa ngi nekkoon ci lancé bu baax tey mën nañ xam lan moo sa secret quoi ak lan lan moo lan lan moo la permettre nga nekk ci lancé boobu. ah waaw nekk nekk nekk nekkoon xale bu ndaw nekk si école laat ba école du Balla fii ba ma nekk xale bu ndaw laa fi nekk ba léegi jàng bëre à bas di jàng bëre nekk si di ko fooyee bu màgg si xam nga dafa am loo xam ne di ko si xam lu bari daal loolu moo tax bëri nañ ay 10 combats teg ko amuñu su defet xam nga bii passé sama dernier combat bi laay soog a di ko sant yàlla tamit ndax bëre di daan rek amul fenn ñëppay daanu ah, amaan nañ combat di si ñaan yàlla yàlla may ñu si ndam ñu continuer suñu dynamique loolu daal moom moom moom ñaan daal. waa mbër ñu bàyyi la kon nga tàggatoo le mot de la fin lan ngay tàggatoo. waaw ñu di tàggu di tàggatoo boo xam ne damay woo waa Guédiawaye di woo Pikine di woo Sénégal gi di woo suñu waa dëkk waa Kébémer di woo waa Touba di woo ñëpp ñu jàpp si. combat bi combat capital la di wo ñep dal ñu japp ci ñi japp suñu combat ñep sama tour normal gaku Omar bas xam nga ñi ci japp ñep dal ñu japp si ay jéego sama grand jéego di gërëm xam nga di gërëm ñep dal ñooy gërëm ñep Bella ñoo leen gërëm ñoom ñep waaw merci beaucoup. waaw mbeur ñu lay sante di la gërëm alors mu nekkon malik gaku numéro 2 bu école de lutte balagay wara bëri ak Petit ñoo